benn mandat boo xam ne juróomi at lay doona ñu ne ko foo ko teg moom Ngouda Fall Kane ci réew mi quotidien daan na loolee sama lecture la sama interprétation la wax leen na leen droit nag bokkul ak mathématique mathématique moom da ngay wax deux plus deux égale quatre waaye nag su dee mbirum droit la loolee kenn ku nekk ak na nga koy interprété waaye nag lépp ñi nga xam ne ñooy waa conseil constitutionnel ñooñee ñoo yor seen cëggul guy ñooñee ñooy dogal fii ci Sénégal li ñu fi faral di wax mooy lu jëm ci wàllu mandat bi lii la Macky Sall waxoon waaye nag wàllu moral dañu ko war a teg fële te woo droit daal koy càmbar yéen kaay gi ba tey di réew mi quotidien moom Ngouda Fall Kane ñu laaj ko liggéey bi nga xam ne waa ARMP ñoo ngi koy def la mu gis mooy ñoo ngi def liggéey bu mucc ayib yéen kaay gi de la Tribune wax ci vaccin bii nga xam ne moom la ñuy wax ne dafay faj coronavirus Sénégal nag lànk naa nekk ko bàyyi maanaam ci ñi nga xam ne si la ñu koy testé yéen kaay gi de l'Observateur mu xëy ñu jànge fa ne en tout cas li am ba des daal mooy woppi coronavirus maa ngi law ci réewum Sénégal ndax ci week bi lu toll si juróom nit ñàkk nañ ci seen bakkan am na nit ñoo xam ne amee nañu doomu jàngoro ji moo moo tax jii ci màkkaan mi nga xam ne moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu wér yaram gi ñoom danañu amal ab réunion d'urgence docteur Abdoulaye Bousso ci yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien nee na coronavirus jamono ji ñoo ngi si ñaareelu vague bi waaye nag mën nañoo dem ba ñetteelu vague ba ñeenteelu vague li ko waral mooy covid 19 tànk ma ngi ci àdduna bi kenn mënu see mucc fii ci Sénégal nag tolérance zéro bi nga xamante ne wax nañu ko dañu ko war a jëmmal ci ñi nga xam ne ñoo du respecté mesure barrières yi yéen a kaay Le Quotidien ñu koy fekk fa docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye moom nag nee na panique jëru ko ji li nga xam ne mooy covid 19 bi contrôlé nañ ko maanaam rëj-rëj ji war nañu ko bàyyi yéen a kaay gii di réew mi quotidien Assane jël xalimaam nee na Aminata Touré li nga xam ne moo jàppoon Khalifa Sall moo ko yoota Khalifa Sall mi nga xamante ni yebaloon nañ inspection générale d'État mu daal di càmbar ay mbiram ca mairie bu Ndakaaru bala ko say fekk fekk ko sa Aminata Touré mii nga xam ne moo nekkoon conseil économique social environnemental ñu yebal fa inspection générale d'État soo mooy tuulee moom Aminata Touré dana ñu rëq ndigam ndax nag moom mi mi moo osé yee gaynde guy nelaw yéen a gi nee na ñi nga xam ne ñooy waa IGE mën nañu jël ab rapport te rapport boobee mën nañu see indil Aminata Touré ay ñol-ñol maanaam bunn xatal ko ba jël ko sax yóbbu ko ci kaso bi Aminata Touré mi nga xam ne ay jamono moo fi doon toppaate tey jii moom la ñuy topp yéen a kaay gi di wal fajiri nee na nag ki nga xam ne moom la gaa yëpp di wër mooy ki wuutu Aminata Touré ci conseil économique social environnemental ndax Idrissa Seck dafa ne mees ne menteñ yéen kaay gi di Dakar ak Libération ñu xëy fekk fa Samuel Sarr moom daan nay jubbanti Aminata Touré yàq na ko musiba ak mbelengaan daan nay wax ne Mimi Touré ba ñu ko jëlee primature ba léegi maire mi nga xam ne moom la góoxaloon Macky Sall munu ko yàbbi daal di wax ne sorti bi nga xam ne Aminata Touré def na ko ñetteelu mandat bi loola rek dafay wane haine bi nga xam ne hainal na ko Macky Sall te loole dafay firnde la incapacité bi nga xam ne moom mi mi amee na ko année quatre vingt ba léegi nii ngir imposé wu ci li nga xam ne mooy terrain politique bi Aminata Touré amul benn dayoo ci lu jëm ci wàllum politique mboolem poste yi nga xam ne jaar na fa lépp ay décret la moo xam asbef la bureau des nations unies wala ministère de la justice wala primature ba si conseil économique social environnemental loolu lépp ay décret la Macky Sall moo ko créé ci ay décret ma waaye nag musuñu ko fal fi nga xam ne mooy Grand Yoff wala sax fi nga xam ne mooy Kaolack nit ku malhonnête la nit ku goradi la du samay kaddu kàddu yu Samuel Sarr la ma ngi ci Dakar Times ma ngi ci Libération daal di wax ne moom mi dafa waroon a nag roy ci Aminata Mbengue Ndiaye wala ay Tall Sall wala Aminata Tall wala sax Aïda Mbodj mi nga xam ne moo nekk ci ku jege dafa jëloon conseil économique social environnemental daal di koy def ab permanence ngir waajal élection présidentielle 2024 Aliou Sall ñu xëy fekk ko ci yéenekaay gi nee na mbooleem plan yoo xamante ni rek Macky Sall daan tekk moom Aliou Sall ànd na ca plan yooyee ci quotidien yéenekaay moom rakku njiitu réew wax ne ñu bari ñoo ngi koy critiquer ñoo ngi koy yàq musiba ak mbelengaan li ko waral mooy li mu bokk ak Macky Sall waaye nag li am ba des nee na géejiwaay moom moo fay patron ba laas yéenekaay ñu xëy fekk fa Mamadou Diop Decroix nee na Macky Sall li muy wax ci dialogue national bi ak mbir yi ni mu demee comme yàlla ak yàlla yi moom Mamadou xam ne moo jot opposition bi daal di joxonte loxo organisé wu te bàyyee wax sax waxi dialogue national yéen a kaay gi du l'observateur nee na xiif bu garaaw bu doy waar ma ngi yoot Sénégal bu ñu sukkandikoo ci Jean Pierre Senghor mi nga xam ne mooy secrétaire exécutif conseil national de sécurité alimentaire daan nay wax ne quarante cinq départements yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal am na ci quinze départements yoo xam ne ci situation yu garaaw a garaaw ci la ñu nekk waaye nag ñi nga xam ne ñoo dëkk Matam ñooñee la seen situation gën a garaawoon yéen a kaay gi dee sat xëy na Liverpool bu